assalamu alaikum <clears throat> wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa tarbiyatu wa ta'alim ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaar di ñëw ci suñu thème boobu nga xam ne moom la ñu tuddee al imaanu billah xam nga waxoon naa la ni gëm yàlla dafa bokk ci li nga xam ni nit ki daf ko wara def ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man saaqa taxmul iman ñu ni ko ah kooku yonent bi mooy kan mu ni man radiya billahi rabban wa bil diinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiya nee ki mos ngëm yàlla dëgg mooy ki fob yàlla rekk def ko muy boroom bu muy jaamu fob diine islaam def ko muy diineem fob Muhammad def ko muy sëriñam def ko muy royuwaayam xam nga waxoon naa la ci alquran man la afa man kaana maytan fa ahyaynaahu wa jaalnaa lahu nuuran yamsi bihi naas aw yaxdi bihi naas yaani ay baat ba loolu lay firi nga xam ne ndeysaan dafa ñàkkoon xam-xam yàlla dundal ko ci xam-xam defal ko xam-xamu ràññee xam-xam boo xam ne leeru maxrifa la boo xam ne mën na ci gindi nit ñi waaye bi ko yàlla joxe Seydina Muhammad daf ko wax ni ko li yunsir man kaana xayyan ah, waaye waxal ceeg ci xam-xam bii maanaam waxal ak waxal euh, ñi xàmmee ci maarifa li yun sira man kaana xaya nit ku nekk waxal ak moom ala qadri uquli mooy li yun sira man kaana xayan nga dund nga wax ki nga xam ni mu ngi dund maarifa dañu waxee xayi mooy ki nga xam ni dafa xàmmee fala nox yi yannahu yàlla ne ba wax moom da nee na ñooñu danaa leen dundal fala nox yi yannahum xayaatan tayiban danaa leen dundal dund gu dàq gañ doon dund ndax dana xefe ba ñu gëna xam lan mooy yàlla gën a xam lan mooy maarifa mu ne astajibu lillah wuy ji leen yàlla wuy ji leen yàlla wali rasulihi ak yonentom isa daakum buñ leen woowee ci loo xam ne lima yuxyikum day dolli seen dund ba seen xol du dee seen ruux dund te loolu maarifa rekk ko man moo ne nag boo woowee nit ñi ba ñu ñëw yow Seydina Muhammad xulillah jàngal leen yàlla kese kese kese kese kese suma sarxum te nga féexal leen nag jàngal yàlla wan leen yàlla mais bu leen woon sa bopp bu leen woon sa bopp mooy li oustaz Mansour doon wax ne xul xul innama ana basrun yuuxa ilay wax leen ni man nit rek laa comme yéen dañ ma wax yu rek dañ ma wax yu rek waxloo ma kon waxal nit ñi yàlla rek mais bu leen wax yow yaay kan moo tax nekk fi di jàngale kenn jaru ko jàngaleel yàlla rekk nit ki feeñ ci biir sa sëriñ bi nga bëgg a màggal dëgg boo bëggee ñu xam sa doya sëriñ jëlal njàngale bi mu jàngale ci yàlla rekk génne ko ci aqiqa jàngale ko nga xool góor ga <coughs> ndeysaan dafa wax rek ne talaat samsu man ahabaka layla ay yàlla talaat fekk na samsu man ahabbaka jantub ki la bëgg laylan ci xaaju guddi fastanaarat mu leeral àdduna bi yëpp fa ma la day bu jant bu dootul soo moo fekk ci sama xol te mooy jantu aqiqa bi nga ma jàngal <clears throat> ina samsa naxaari mu ne ko jantu bëccëg bii di di di di fekk ci penk suba teel di soog ngoon taxru bu laylan di so ci guddi kooku <clears throat> jant la rek boo xam ne mooy la ñuy tuddee moom la ñuy tuddee jant boo xam ne eh, day ràppal di màggatal waaye am na jant bu dul ràppal di màggatal ñu ne ko ban la mu ne wa sumuusul qalbi laysat taqibu eh, mu ne ko xol jant xol mu ne ko jant boobu du so mukk te mooy leer bu yàlla googu di fekk ci xol soo nonul musri mu ne eh, itilaahul xaq fekkuk dëgg ci xolu doomu aadama nee na loolu lu yéeme la ka itilaaxi samsi alal ard waaye dafa mel ne ni suuf di feq ni jant di feqi ci kaw suuf rek bi ishraqil anwar ci sànni ay ceeñeeram xaaleykum bi tasfiitil xulub mu ni waaye bale leen seen xol yi ndax yàlla andi ci leeram gamu mu feq fa innaha mawadiu nasrihi nee na xanaa xamu ni seen xol yi mooy pey bi nga xam ni fa la yàlla di teg bëtam wa mawatini shirhi mooy peeyu sekkereem fa inna man arafa allah képp ko xam yàlla laa yaxtaaru xayru xabiban siwa dootul am xarit wala bu dul sunu borom subhanahu wa yàlla rek lay bëgg moom rek lay def ci xolam mbokk yi inna allaha taala xalaqal xalqa fi sulmati suma alqa gis nga yàlla dafa bind nit ñi ci lëndëm mu fob dara ci leeram sànni ci biir lëndëm ga ci leer googu mu sànni ci biir lëndëm ga ca la tànn xam ne ñi muy tànn jubal leen xam nga ne wax naa la ni allahu nuuru samawaat <coughs> yàlla mooy leeru asamaane juróom-ñaar mooy leer gi nekk ci suufi juróom-ñaar lépp lu feeñ moom ndax neewal na la may awalu di aaxiru jaahir di baatin su ko defee nga bàyyi awal yottoom gi bi nafsik ci sa bopp bàyyi aaxir yottoom gi bi nafsik ci sa bopp bàyyi baatin yottoom gi bi sa bopp waaye nga jël saahir yottoom gi feeñ ci yow nag nga jàng ci sunu borom subhanahu wa taala yahdillahu li nuurihi man yasha yàlla day jubal ci leeram gi ci mbaaxam gi ci hidaayatum gi képp ku ko neex ndax in kunta waa ji nee na ko sunu misri mu waxoon loolu sunu borom ni ko in kunta lasta ma'i fa sikru min xalbi yaraaka wa in quyibta an bashari nee na ko yow day soo nekkeek man man day maa ngi nekk ak yow bu fekkee ni sa jëmm yi sa jëmm ji ak li ma yaakaar nekkul ci man ah sa tur wi moom du jóg ci man du jóg ci sama xol du jóg ci sama làmmañ ndax soo ma soo ma <coughs> su ma la gisul itam sama xol mu ngi jàkkaarloo yow te suma bët musul teg ci tegeeku ci yow moo tax yaxtu Yahya ibnu Maas waxoon la waxoon ju rëy boobu mu ni la na nga bàyyi xel ni xam yàlla dafa neex moom Yahya ibnu Maas mu ni te neex gi mu neex mooy dootoo mën a geestu ila niame dunia dootoo mën a geestu bi nga xisee ba teg sa bët ci yàlla dootoo mën a xool am amu àdduna moo tax ñooñu lu ñu yor dañ koy joxe ndax bëgg yàlla gi ñu bëgg yàlla lu ñu yor dañ koy joxe moo tax yàlla ah du ngeen jeexal de comme yéen mën a joxe ngir man maa dox maa dàq a joxe moo tax mu ne moo tax mu ne moom it fa yasiidu ila niamihim day dolli ca seen xéewal ya bi yi ci cofeel gi nga xam ne moom ngeen sopp moom lay am ci yéen moo tax mu ne yaa ayyuhan nabi e yow muhammad xasbukallah na la yàlla doy mais bul soxla li ci nit ñi fa in tawalaw bu la ñëpp wanee ginnaaw fa xul xasbiyallah waxal rek man day yàlla rek doy na ma ndax na la yàlla rekk doy su ko defee kon mbokki jullit yi ñu bàyyi xel ni kon ngëm yàlla la fa xaw diis ci xol waaye dafa neex ndax boo gëmee yàlla dara du la tiital dara du la gàllankoor du alal du doom du jabar du mbokk du kenn moo tax nag fokk ñu def la dof mbokk yi fokk ñu bañ la doom yi fokk ñu gàllankoor la alalu àdduna fekk mu jéem laa tarxisal waaye bu la dara tarxisal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp wasalaamualeykum ngeen baal